benn moy adina, adina, jarul ngay yakamti gis nga ab pal yàlla fal nit wala moy nomi nit ci ben beurep jaaraale ko ci moromom nit donc jarul yakamti il faut pas tellement presser que plus que euh, même yalla dambo ñi mu doon ñu ko doon kaasal no dambo jëndal ngay wax parce que yena xex xex bi même dambo il a failli même tomber dans le piège mm. parce que son dernière sa dernière sortie

fi la taxaw la dambo ji reerowul ak Ousmane Sonko. Mm. reerowul ak Diomaye en tout cas reerowul avec ceux qui étaient dans la coalition Diomaye président dambo ji musul réeroo ak ñom parce que ñu don taxaw ne dambo faut que moi capitaine Touré que ñu jox len poste l'histoire nous a donné raison ñi ñi donné ne patience.

qui ne veut pas gérer avec ces personnes dignes de confiance ay nitam kan moko kan cest à que il y a un état gis le régime pour nga am gestion bu ba, il faut ce qu'on appelle il faut responsabiliser ces certains postes à des personnes dignes de confiance ay nit say nit dëmb munoo xex ak ñom nek ci opposition bi ak opposition nu mu métier ngeen le parti Pastef mu persécuter ko jaay ko doole le régime de Macky Sall amul fu leen yóbbul ces ces hommes-là étaient là debout Yo nga ne tay gagné nañ ñu bàyyi ces hommes-là ñu doon xeex dem da jëli ay ay borom supposé ay nit kàngam ay xawma lan non non non après candidature. non non ñu ko jaay. non non waxuñu. non non il faut préciser. dama ne non non ñun waxloowuñu loo xam ni ñoom waxuñu ko exemple. dama ne après à candidature bi ñom ñu ko jaay. dama ne appel à euh, euh, candidature les postes dañ ko def appel à candidature. sëñ Fallou sëñ Fallou sëñ Fallou nañu waxante waxuñu ni que ils vont mettre tous les postes appel à candidature waxuñu loolu c'est-à-dire que c'est bel et bien de mais aussi da les wax loolu nit ki lu mu wax certains postes. certains postes voilà ba léegi postes yi jeexagul ñu am rafetu njort gi ni que dinañ am ci ay postes yoo xamante dinañu au moins lancer appel à candidature mais yow que ça mais quand même y a des postes stratégiques que ça soit les postes stratégiques mënoo leen def appel à candidature je suis désolé ñi may seetaan xam nañu bu baax parce que poste bu stratégique beaucoup de defee appel à candidature mën na nekk ku nekkoon ci Macky mu gagner yo yo yo yo ki nga amoon ki ci ci opposition bi mën na ko gagner parce que appel à candidature nga nga def ki mën na andi ay documents yu gëna a wala ay diplômes yu gëna kawé ko xamantene a ne yéen ci opposition bi xeex xeex bu ne nga def poste stratégique appel à candidature keneen ñeu keuf affaire yi yóbbu. Hmm. dans ce cas tu n'auras pas une personne digne de confiance mais da nga fal wala da nga nommé kenn ki nit ko xamante c'est sa opposant nga nommé parce que appel à candidature yi nga def moom mu ñëw këfu yalwaan bi hmm, mota tax les postes stratégiques duñ ko waruñ ko def appel à candidature ñom Ousmane Sonko xam nañu bu ba mais dama né ils ont dit certains postes ay certains postes la ñuy ne dinañu def ces postes là appel à candidature mais ba légui postes yi jeexurgut poste yi jeexagul moo tax ma ma am rafet ndiot ni que dinañu am ay yenen poste yu def appel à candidature c'est tout simplement que ça hmm. mais nak buy opposer c'est bel et bien d'opposer parce que aussi dans un pays démocratique il faut ce qu'on appelle des opposants ça aussi man je l'ai toujours cautionné il y a toujours ce qu'on appelle un parti au pouvoir et une opposition maintenant opposition mais avant donc hmm pourquoi euh, justement euh, naka leen daal di sur a mën a parce que suñu nee appel à candidature là dañuy introgé wu que ni dañoo bëgg une gestion boo xam itam euh, gestion bu efficace la et que gestion boo xam ni itam amul benn par là alors moomu gën nga donc dama fal exactement. oui oui à quoi donc peut-être mu daal di war a impact ñuy daal di bindal appel à candidature de y'en poste nga jàpp ni ak lan moo des loo xam itam yi ay postes franchement ça ça, ça, ça, ça, mérite justement euh, d'un appel, à, candidature. Ouais, mais en tant que journaliste, man man sangam, non, non, non, analyse dafa am poste mais en tant que journaliste, man ma poste sangam wala poste sangam appel à candidature. poste appel à candidature mais du man man su ma analyse dama né ils ont dit certains postes dinañ ko def appel à candidature ma am rafetlu ndiot ni que ñom comme poste yi jeexagul ñom postes yooyu bu fa égué dinañ def ce ce poste là appel à candidature. Mm. rafet bu ndiot bobu la am. moo tax ma la il y a c'est bel et bien d'avoir de de l'opposition au Sénégal c'est bel et bien parce opposition aussi da lay jàppale ci euh, ta gouvernance quand xawee déraper rek ñu alerter comme ça nga xam ni que fi nga jëm baaxul mm. nga jéem retourner waat jël le bon chemin moo tax Macky Sall erreur boobu la defoon mooy maintenant dire que mon bëggul gis opposition moi il est allé droit au mur ba mbëkk la doog que donc man normalement warna am opposition donc Diomaye ak Sonko waruñu Dieu ce même mécanisme dire que il y aura pas d'opposition coûte que coûte force donc do am opposition non lolu erreur la euh, moo la une ne la sëñ Fallou ma jeexalee foofu dama allez-y non si kaw Dame la bëgg ñu taxaw ci parce que dafa doon benn coupure bo xam du nga bëgg égal exactement mais enfin mhm. Dame sa première réaction franchement euh, dégg na li mu wax encore une fois mais enfin euh, dame tamit avant lu nu mel euh, doon na daal di dénoncer ay kër mhm. yi ñuy tabax si àll bi mhm. ñu bëri di ko ŋaañ naan ko il est temps que ni ñoom Diomaye ak Sonko daal di koy euh, stoppé et tant mhm. d'autres et tant d'autres au contraire Diomaye da koo dénk tabax ya nekk si wàllu jam ñaajo

mu jokkoo poste bobu mu responsabiliser ko Dame da doon dox ci ay infrastructures ñu ñu tabax fi ci dakar ci anam illégal mu filmer maintenant si ko des ay infrastructures dans le pôle urbain de dañ ko de combat ñu ba xam ta responsabilité est là. tu es devant la scène maintenant jox nañ la li nga doon wër mbéd Dakar yépp di filmer désormais wër da ngay tok bureau. Tal nga xam fan fan fan fan ñu jox toutes les informations ba de ñu comme da nga doon dox légui dox de da ngay am voiture de fonction fo bëgg dem seytu nga dugg sa auto nga baña <laughs> dam lañ doon sa de mom ak clé d'or set dox ñu comme lolu nga doon wër du pënd dañ lay jox direction buy saytu wàllum infrastructure dans le pôle urbain de Diamniadio ba pare jox la une voiture de fonction nga am un bureau à ta ta disposition maintenant li nga doon yàgg kaas ci mbedd bi bay filmer léegi doo filmer yow yaay chef bi toogal foo bëgg a dem nga dem foo bëgg a lancer say nit ñu dem saytu ñu dem c'est tout simplement que ça loolu la ñu defal dàmbuñ il nous doon ne non Dame ñu ko ministère de l'éducation c'est pas ça seulement s'il n'y a pas euh, le ministère de l'éducation il y aura autre chose. voilà il y aura autre chose. montre moi la patience ça paye bien yalla ci bopam loolu la santaane ci doomu adama jullit yalla dafa na ci alquran soyez patient parce que wërsëg man maa koy joxe. ci loxoom lay tegu yàlla jëlu jëlul wërsëg jàmbur jox ko nit parce que connaissant doomu aadama yàlla dafa xam doomu aadama jàng ko moom moo ko defar bu jëloon do wërsëg doomu aadama dénk ko fàllu amaana arfan si jot parce que doomu aadama dafa soxor soxor boo xamante ne voilà moo tax yàlla mbirum wërsëg joxu ko kenn moom moo koy séddale ba moo koy joxe donc moo tam yàlla ne ñu soyez patient dans la vie soyez patient yenn jarul kaas xam nga mën nga kaas ba yàqal sa bopp. moi man toujours damay toog ci plateau bi di alerter ma ne il faut pas tomber dans les dans cette erreur il taxaw di la naan non daa warol warna am poste amul poste lolu animé la yow daa ba nga dem def point de presse wax fa lo xamantene la laka sudul noonu mu jural la lenen lo xamantene moy lolu heureusement il il a il a su comment de reste garder ce calme là bu doon wax ci lenen la doon wax te jeexagul ñeneen ak ñeneen ba amagu ñu poste xawuma leen de

xam boy buy gouverner wax naa la ko ci gis nga ñu nag ci opposition bi opposition bi métti Ki connaît l'histoire de ce parti PASTEF saura que ñu ñuy fal lii mérité tu sais pourquoi ba ñuy tas parti PASTEF kenn transhumé wul man je veux aussi qu'on se dise la vérité c'est pas politiquement man dama génn ci cadre politique dama nekk di wax en toute vérité gis nga ba ñuy tas parti PASTEF. Hmm. ñu ñuy fal tey kenn transhumé wul yoon bi metti metti metti bo xamantene fo foo ñu gazé la damboj a été gazé combien maa que fàttaliku beneen convocation Ousmane Sonko ak euh, le jugement de Mame Mbaye mm. le produit, mm. ñu ñoo nekkoon ci la voiture de de la presse mm. man j'étais là-bas la voiture de la presse euh, boo xamante ne ñu déparé cité keur gor gi top si ginaaw Ousmane Sonko nous de la presse les agents de la presse on nous a gazé ba ñun sax xamuñu fu ñu nekk a seen caméra yakko ñii sen micro ñu sànni ko fële ñuy perte sen téléphone yi do xam mais était avec Guy Marissagna. Sagna était avec Guy Marissagna. quand on était arrivé à la hauteur de de de de Médina la Médina je me rappelle bien les gendarmes daño wàcce won ñom Dame ñu ne dans la foulée ils ont commencé à gazer. même ñoom Dambodj les les députés Guy Marius Sagna la ñu commencé di leen dóor Dambodj dafa daw keroog boo <laughs> non mais je me rappelle de ces images là maintenant tout boo gisee ma expliqué loolu pour ne la. Dambo les postes qui aussi ben euh, tiré euh, eh, exactement c'est auto si parce que il a fait une émission à, la TFM muy bi dor on a vu l'histoire de Dambo maintenant si aujourd'hui on responsabilise Dambo dans un poste bu poste bu mais il a mérité il a mérité sénégalais gore leen sénégalais sénégalais mon Dame mérite bien ce poste-là ak luko mais quand vous muy mettez, c'est Dame là était là Bonny je me rappelle même même il a été arrêté Dame si je me souviens bien il a été arrêté après aussitôt il a été libéré bon muy le régime de Macky Sall il est di dit ñi mais moment Bobo, yom Dame tenir un discours solide dans la scène politique. ñoom dàmboj nii ñu ngi taal jamono boobu seen live di wax di wax lu leen neex boobuy métti laa la wax où était ces gens-là ñuy taxaw tey dinan, non dañoo wara def ces ces postes appel à candidature où étaient ces gens-là Yi ba muy métti ci opposition bi ñu di gazier ñu leen di tëj di génnee di tëjaat di où étaient ces gens-là ñuy taxaw dinan, non Bassirou Diomaye Faye ay séddoo bukki la ñuy def war nañu def poste à candidat parce que ñoom ñoo ko hmm. oui yom ñoo ko mais quand ils étaient opposants yom ñoo ko waxoon boo opposant ak bonne nekkee au pouvoir. <laughs> réalité bi bokul réalité bi bokul donc ay réalité ñoo dab jomay mais bokul ah, si tu es dans l'opposition mën nga né dina dina def certains postes appel à candidature mais si tu toutefois tu es accédé au pouvoir c'est Serigne Fallou on sait bel et bien bu ñu wulé hmm. Serigne Fallou aujourd'hui si tu es au pouvoir par exemple ma jox la exemple tu es élu président de la République mais do dem jël benn nit ci Allah bi bo xamanté ne yow mais da ngay continuer toujours en étant président aujourd'hui di Andak ak say nit demb yo xamantene bu métier muy metti ci lacrymogène yi ci cocktail molotov yi ci gourdin yi ci euh, euh, bras droit bras homme fort Macky nervi qui ci bu muy am nervi ces hommes là étaient là toujours appartenant à un parti qui s'appelle PASTEF ba ñuy tas parti bi ñu bari jàpp ni que dinañu daw dem rejoindre yenen parti mais daw ñu fenn

tey ba muy neex ñu ne noo Bassirou Diomaye fay warul fal ñu mel ni Dame ñu mel ni Seydina euh, Omar Touré ñu mel ni ay Dame Mbodj boo xamante dañ leen doon gazier avec leur âge là ñoom Habib Sy ah ñenn non waruñu leen fal non dañoo war a def se appel à candidature wala ñu dem fal ay yeneen ñu bokkul ak ñii nañu bañ a naxante yéen tamit arrêtez de dire ce que euh, ce que Alpha hmm? euh, nomination aussi bu Aïda Mbodj suscité na li nga xam ne que moo ay polémique daal di koy dénk li nga xam ne fj ku wax DER wax wàllu ndaw ñi ak walu jigéen ñi Arfan mhm. concrètement Aïda vu son âge exactement euh, encore une fois les nominations d'une am parce que le président est habilité de nommer qui quiconque au poste militaire c'est civil mais quand même Arfan tamit Aïda mode DER joxe liguey développement euh, entrepreneurial rapide bi euh, ñu bari japp ni un jeune peut-être profite bien à ce poste dama ne xam nga ku nekk ak gis-gisam. Hmm. man je suis démocrate. dama nangu yo sa xalat mais aussi non non non euh, si exemple la la jox je comprends non non non exemple la la jox exemple la la jox juste. pour de la man je suis démocrate je suis un journaliste dama lay nangul yo sa xalat mais aussi man suma ma nga nangul ma sama xalat Sénégal lo la wara a maintenant ñi taxaw di naan peut-être à ce poste de DR war nañu proposer un jeune que euh, Aïda d' accord seen xalaat la ñu yor mais bu leen fattee que DER ci jamono Macky Sall ay jeunes ñoo ko doon yor hmm. <laughs> oui